ziar gaay yi mbaa yéen ci jàmm euh, waa Kaolack ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax ci acte bu noble bi nga xam ne def nañ ko mbir mbirum góor jigéen dafa am luñ ci war a jàngat lu bëree bëri euh, bu njëkk bi mooy nan la leen suñu borom toroxale ci alquran ak lan la leen yonente bi wax loolu boo ko xoolee gëstu ko càmbar ko ba comprendre loolu noonu di nga xam ni lépp lu waay teg ci seen kaw rek yeyoon nañ ko parce que boo demee ci surat 7 verset 81 suñ boroom wax na leen fa wax ju tar nga dem ci surat 27 verset 55 euh, kazalik nga dem ci surat 11 verset 82 suñ boroom wax leen fa wax yu yéeme yoo xam ne si euh, képp su amoon kenn ku yërëm euh, nit nga xam ni mooy ab jaamam boo xam ni moo ko sàkk suñ borom moo leen sàkk ba pare gis nga eh, sànje bu tar bi mu teg seen kaw châtiment bu yéeme bi mu teg seen kaw eh, duma leen ba pare ray leen ba pare ta yemul ci këpp leen suuf si wante tawaat ci seen kaw ay doj xam nga ne loolu lu yéeme la donc loolu nag boo ko jàngatee nga xool boole koo lii leen yonte bi wax ni leen képp koo fekk ñaar ñu fekk ñu di ko def na nga rey ku góor ka rey ku jigéen ka loolu daf ñuy yóbbu ci ñu gën a euh, ñu gën a xuus ci gën a félicité waa Kaolack ni leen noonu kese la saa bu ngeen jekkuwaatee lu mel noonu rek defaat leen ñu mel noonu noonu kese la te loolu mbir mi dafa am ñaari message yu muy lancé yoo xam ne si benn message bi ñu ngi koy lancé jëmale ko ci autorité yi état Sénégal beneen message bi ñu ngi koy lancé jëmale ko ci képp kuy góor jigéen message bi ñu jëmale ci kuy góor jigéen mooy eh, ki nga xam ni faatu na nga tiim aw yaramam kese def ko lii eh, kay def loola nga xam ni kii nii ku am yërmande la kuñ daan tabbee yërmande la mu dem bay def loolu eh, kon ka mu tiim di ko def loolu lan la def la mu def ban poids lay loolu ngay ngay analyser bul analyser jëf ji teew da ngay analyser lan moo waral jëf ji lan moo poussé waa ji ba muy def lii te moom xolam nekkoon xolom bu gaaw yërëme mu dem ba tiim nit ku dee ma di ko lakk jëf jënit ka faatu jëf jëf jooja àgg fu yéeme ba poussé waa ji mu def ko jëf ji mu ko def loolu la wante bul analyser jëf ji teew lan moo waral jëf ji am ngay analyser muy jëf ji bon ji nga xam ni moom la sañu borom tere teg ci lu yéeme waa ji su nekkoon ci ba faatu nga xam ne si ab néewam sax foo dem di ko fa bëgg a suuli ñu lànk Euh, loola ngay xalaat ni moom moo indi lii mais nekkul loo xam ne dañ koo def nii rek par hasard kon bépp góor jigéen war naa xam ni euh, li ñuy def ci senegal gi senegal yi d'accorduñ ci ak ñoom seen xol yaa ngi ci metti te suñ amoon lu gën a tar li nga xam ni teg nañ ko waa ji nii nañ ko teg góor jigéen ñi kon góor jigéen ñi amuñu benn place ci Sénégal képp ku fi nekk di góor jigéen xamal ni ne xatal nañ la ci suñu xol xatal nañ la ci suñu jëf xatal nañ la ci suñu xel xatal nañ la ci suñu espace bu dutoon euh, état bi leen fi yaatal kon su boobaa génne lañ fi képp ku fi góor jigéen nañ la fi génne ci nii wala ci na loolu la góor jigéen ñi war a jàpp état Sénégal li ñu war a jàpp ñoom mooy ñi nga xam ni euh, message li xew kaw la message la buñ leen di lancé boo xam ni di leen wax leen góor jigéen bu ngeen ko fi autorisé ak bu ngeen ko fi autorisé wul autorisé nañ ko fi sax parce que ab dëkk boo xam ni kum neex nekk góor jigéen yor saw carte carte bi nga yor dina la permettre kenn du la dóor kenn du la euh, mënal dara yaak citoyen simple yi nga xam ni ñoo fi nekk yeneen yem wala sax yow nga ëpp leen su boobaa autorisé nañ leen fi ci ci ci ci baatin autorisé nañ leen fi dañ koo deful kay de façon officielle waaye autorisé am nañ fi autorisation bu baax baax a baax a baax ëpp le leen fi cër cër bi nga fi am moom la fi góor jigéen ñi am léegi nag état Sénégal li war a jàpp mooy sénégalais yi eh, suñu sañoon góor jigéen jóge seen réew bëgguñu fi góor jigéen guy taxawal bëgguñu fi ñu dundal fi ak ngóor jigéen bëgguñu fi benn autorisation woo koo xam ne ku mu neex nga dund ak ngóor jigéen nu mu la neexee non non Sénégal état Sénégal war nañoo jàpp ni ngóor jigéen moom rek lañ fi bañ. état bi xam tamit nii lépp népp aw naqar di def xol euh, ba ba poussé borom muy def euh, loo xam ne si soo paree da ko réccu góor jigéen yóbbee nañu naqar woowu dañ cee mënul dara waaye kon suñ espace su Sénégal gi territoire Sénégal bi benn góor jigéen du fi yeewoo waaye nag mënuñu ci dara parce que yéen yéen yor doole ji yéen dogal wante acte bii dina leen lancer message boo xam ni naqari nañu tey naqari nañu ëllëg naqari ñu naqari nañu suba naqari woon nañu démb te duñu mas a neex mukk parce que mu jullit la ñu yore kenn waru fi autorisé yu bon yooyu voilà léegi nag euh, am nañu ma dégg ñu naan dañoo soxor dañu euh, def nangam nangam loolu ku bëgg a reproché ñi def loolu ak soxor reproché ko suñu borom parce que suñu borom a njëkkee jaar foofu ak ñoom ku ko bëgg a reproché ñi ko def reproché ko yonent bi parce que yonent bi moo njëkk a digle lu mel noonu xam nga loolu euh, lu doy waar la li yonte di wax ci ñoom ak li suñu borom wax ci ñoom loolu rek sëkk ci misaal ni mbirum góor jigéen kenn xel warul xalaat muy nekk ci am réew parce que day yàq am réew suñu borom ay yàqkat la leen tudd ab yàqkat nag fépp fu mu nekk mi ngi mel ni ab cër bu am tooge ci aw yaram na ko docteur di dagge na ko docteur di dagge ngir xam ne boo ko dëggul ëllëgati si biir dina contaminé cër yépp cër yëpp feebare ni moom noonu la góor mbirum góor jigéen mel réew mu am dañ ko war a seppi sànni ko raxasal dañ fa bañu seet wicc lu dul loolu réew ma lu mu gën di dem yàqu-yàqu yi di gën a bëri jikko yi di gën a bon suñu boroom di leen gën a jéppi te ëllëg bés mën naa dikk suñu borom def leen na mu defoon nitu yonent yàlla luut ña mooy jàqarti dëkk ba la newoon ca kaw fare suuf mu pare taw ci seen kaw taw doj yi taw doj muy mbir mu yéeme moo xam ne lu mat a moytu la te lu mat a bàyyi xel la état Sénégal ñi leen ni woo ñu revenir à la raison ci mbirum góor jigéen